salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa walana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu jiitalee ci nuyoo bi ak ziar bi xalif général des mourides sëriñ Mountakha Mbacké Al Bassir du ko ñaanal yàlla yàggal ko fi loolu tam ànd ak wér ak xalif général des Baye Fall ak njabootu sëñ Tuubaa gépp ak taalibe mbokk yi seen bi moo ñëw yéen ci seen émission bi di doxantu safar ngeen ànd ak seen mbokk seen xarit bëgg fàllu international. kon tey ñu ñëwal leen fii ci Malika ci kër sëñ Touba gi ànd ak daayira bi ñu naan wakaan xaqan aleyna nasrul muminin fas yéene ànd ak yéen def marche marche pacifique boo leen ko déggee mooy ànd dox sant Serigne Touba mi nga xamante ni moo demoon ci tukki bi safar gi ñu koy waajalee ci màggal gi kon mbokki internet Ali Imran TV yi ku bañ dara raw la rek ci safar gi ku bañ dara raw la ci marche bi rek topp ñu incha allah boo ko defee doo ko réccu jërë ngeen jëf. Fall moom sëñ Ablaye Fall Ndar moom maam Cheikh Ibrahima Fall nga xamante ni waa juróom lan dara bis bi daayira bi di ko gaana xaqan moo ko dara jaale mars bi ñuy def di ci sant sëñ Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul sëñ Touba nag bu tuddee maam Cheikh buñ ko tuddee kon sëñ Abo ngi nii moom sëñ maam Cheikh koy wax moom nan leen gisee maanaam taxawaay bi nga xamante ne waa daare wakaana xaqan amal nañ juróom bi nga xamante ne dafa am taxawaay bu rafet fii ci Malika di fi dox bu rafet ba waaye di def rek boole ko ci kon dañuy bàyyi sëñ maam Cheikh rek sëñ Abo rek mu ñëw ci wax nan lañ yëgee li nga xamante ni moom lañ dara jaale waajuram ak teewaay bi nga xamante ni moom la ko fi teewal ak yan kàddu la ko sëriñ bi dënk rek bi mu fiy ñëw sëñ bi bisimilah. asalaamaaleykum waa mbooloo mi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ziar waa daayira waa Wakaana ñëpp ñëpp di leen delloo njëkkal yéen ñëpp di jël ziar bi nag muy ziar sëñ maam Cheikh Fall moom sëñ Ablaye Fall moom Cheikh Ibrahima Fall. mooy caatu sëñ Ablaye Fall Ndar waaw moom mu nekkee fii ci Malika yéen waa Wakana ñëw ba fii dee ko seen marche bi bu ngeen ko defee def ngeen lu ko war ndax ku ne Serigne Touba ne Cheikh Ibra te ginnaaw yàlla ak bi ñëpp moo fi moo fi mag si ñi fi nekk si kër Sey moo fa mag si waa kër Cheikh Ibra yi ñi nekk Malika moo waral ngeen dippee ko Cheikh si waa kër Cheikh waaye ñii ma dendal nii ñëpp. sëñ kii ni sëñ Aliou Fall mi moom tamit si waa Kër Cheikh Ibrahima te daa fii ci ma ñëpp ci waa Malika yi lañ kon bu ngeen ko tuddee sëñ maam Cheikh Fall daa fekk ne dafay mag rek waaye Cheikh Ibrahima ñëpp ngeen ko Cheikh Ibrahima si boppam ngeen ko tuddee tuddee woo ko sëñ ma tuddee woo leen ko sëñ maam Cheikh Fall looloo waral sëñ maam Cheikh ba mu fii ñëw mu ne ma bu doon maa ngi fi man maay ànd ak yéen defee ko comme ni ngeen ko bëggee comme ni ngeen ko bëggee bu doon ne maa ngi fi maa ci ànd ak yéen si marché bi di dox ba lépp lu ngeen ko bëggee rek bu soobee yàlla ñoo ngi seen ginnaaw fi ngeen ko bëggee ngi ceeg yéen noonu barki maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla ngeen ko yàgg def ay ati at barki borom Touba Ndiaré. jërëjëf ngeen jëf Fall yaa ngi ànd ak sa mbokk. waaw nga xamante ni a ah, di di di di doom ci sëriñ nga xamante moom sëñ Modou Menda. waaw waaw ah, bëgg rek. Fall dañoo bëgg rek nga ko. moom mu ñëw wax maanaam lan la yëgee bis bi ak darajaal gi nga xam te moom la ko darajaale waa juróom moom it mu wax ñu rek ci ban yëg-yëg la am ci loolu waaw waaw nga xamante ni ah waa doom nga ci sëriñ am di moom sëñ Modou Mena xalif général des Baye Fall kon bis bi tey dafa Baye Fall lool te yo bisu murit moom bu Baye Fallee rek mën na ni mel na ne na sëriñ bi bëgg ndax sëñ Touba moom maanaam mën na ni bu dee bëgg am na ñi mën a bëgg Cheikh Ibrahima ci la bokk kon lépp lu waay defee boo ci boole Cheikh Ibrahima na ah ñu dippee ko sëñ Mame Cheikh Fall moom it muy sa waajur ñu wax Fall ban yëg-yëg nga am ci nga xamante ni daara ji di ko sëñ Mame Cheikh Fall ban nga ci am ak ban ban ban gis-gis nga ci am Fall loo ci indi jërëjëf xanaa sant yàlla baax rek am mbégte moo xam ne am na tàmbali waaye amul fu mu yem ñoo ngi sant ñoo ngi santaat yàlla baax di gën a dolli suñu pas-pas ci Cheikh Ibrahima Fall te am ne ndaw ñi bëgg nañ ko murid yi nangul nañ ko aw doxinam tamit neex na leen dama faral di wax ndaw ñëpp doxinu maam Cheikh Ibra lañ bëgg ndaw ñi boo demee seen i biir doxinu Cheikh Ibra rek la koo ci waxal wala koo jëflanteel danaan la man nit Cheikh Ibra def ba jëriñ yoon wi mu jaar man yoon woowu moo ma neex man ba tax na saa soo leen gisee sa yaram day daw ñoo ngi sant yàlla baax ñu bokk ci njabootu Serigne Modou Fall Mbenda te yàlla boole ñu si ma ñëw fekk si nii sama xarit ñu bokk waajur bokk lépp ñuy sëñ Aboo mi moom sëriñ maam Cheikh Fall moom sëñ Abdoulahi Fall Ndar sëñ maam Cheikh di suñu waajur taxaw taxawaay bu am solo fii ci Malika liggéeyal fi Cheikh Ibra liggéey boo xam ne àddina bépp teg nañ seen bët ndaw ñëpp gindiku nañ Cheikh Ibra grâce sëñ maam Cheikh Fall suñu waajur woowu ba tax ñun ñëpp ñoo ngi ñaan ñu ñaanal ko sama borom yàggal ko fi lool te wéral ko te ñun ñëpp moom la ñuy roy ci ay tànkam la ñuy jaar bu ñu ñëwee fii Ndakaaru liggéey Seex Ibra moom moo ñu ko xemmem loo moo ñu ko bëgg loo ba tax ñu ñëw Dakar bi roy ci ay tànkam jaar ci aw yoonam dimbali ko ci lu bëree bëree bëree bëree bëri gatandi ko ci bëree bëree bëri maag doomam ju baax ji ak Cheikh Mortala Fall mi di suñ doomu baay kon nag ñoo ngi sant mbokki taalibe bi yëpp mbokki murid yëpp rek di di wax ne lii doxu jàmm la doxu jàmm la doxu mbégte doxu xol bu fees doxu yéene ñoo jël ko jëmale ko Serigne Touba wër sant ko sunu sant duñ ko yemale sunu bopp duñ ko yemale sunu ñooñu bopp dañ ko bëgg a yaatal ba adduna bépp xam ne ñoo ngi sant Serigne Touba Serigne Touba la ñuy sant sant goo xam Serigne Touba lañ ko tàmbale te Serigne Touba lañ ko yemale ñoo ngi sant Serigne Touba jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñoo ngi nuyu ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant waa wa Wakana bi taxawaay bi am na solo nii la rek. nañ jàpp rek teewoo ba xam ne yoon wi du yoonu wax yoonu jëf la yoon du wax jëf la nañ jëf rek nañ jàpp rek buñ ba mukk Fall tamit nga ñaanal télé bi nga xamante ne mooy Ali Imran TV ñëpp gën kaa xam ci Saalin Sall mu moom nga xam ne ku ko xam-xam ni diine rek moo ko ñor ak l'islam moom loolu leen di ñaan rek wax mbokk taalibe yëpp ñu gën a abonné wu ci seen bii di Ali Imran TV ndax gis nga li muy def ni yëpp mooy dimbali l'islam kon nag képp ku lislaam ñor wala képp ku sëriñ bi ñor hmm. war ngaa mën a abonné ci Ali Imran TV hmm. bokk ci ñi ci xel liggéey bi jëmale ko kanam ndax liggéeyal lislaam la jërëjëf ñoo ngi sant yàlla bu baax di leen di leen dugal ci cant gi ñuy cant Serigne Touba di sukkandiku cant Serigne Touba bu dee am na benn daraja wala benn barke ñoo ngi ci sukkandiku yéen tamit di leen ci ñaanal Ali Imran TV sa borom yëkkati leen mu doon télé bu gën a ràññeeku ba télé yooyu suñu Abdoulaye ñaanoon tey hmm. eh, eh. meññitu meññituñ yooyu moo jur télé yi yëpp waxi si ñëpp laa jooji kon nag ñoo ñaan seen télé bi yàlla na bokk si télé yi ñëpp ràññee ko ci yoonu murid gi adduna ko adduna ko siifu ñoo ngi leen sant leen gërëm maa ngi sant sama doom baay ji baax nag di sama xarit di sama lépp di nit ku baax a baax a baax a baax sama tànk yi fii tey moom moo ko waral uh-huh. lu mu ne ma xam ko uh-huh. lu mu ne nag fas nañ si yéen a ànd ak moom uh-huh. ku baax la ku baax a baax ku gàcceelu Cheikh Ibra la ku nawloo la jërëjëf ah waa Daara Wakana xaqan ki ñu ko duppee moo saf sap moo neex muy maam Cheikh Ibrahima Fall ndax sutam lañ ko tuddee muy sëñ maam Cheikh Fall. kon tey jii ñu ngi taxaw ak euh, sëñ moo sëñ Mortala Fall ah, di borom nay leer Fall moom it bokk ci dox bii nga xamante ni ñu ngi dox di sant Serigne Touba Khadim Rasoul moom it ñu koy wax it gisin ba ban gis-gis la am ci daara ji yëkkati maam Cheikh Ibrahima Fall tuddee ko maanaam doxantu sabar gi di mars pacifique di marche boo xam te ne amul sànni xeer amul taal puno marche sant la teg ci yar ak teggin kon dañuy bàyyi sëriñ bi rek moom it mu indil ñu participation am ci doxantu safar gi incha allahu rabbi. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbarke borom Touba mbarke maam Cheikh Ibrahima Fall Lamb ñu ngi sant maam Cheikh Fall bu baax ci bis bi nga xam ne dañ koo yëkkati di ko def marche sant maam Cheikh Ibrahima Fall ak borom Touba. lëkkale ko maam sëriñ maam Cheikh Fall moom sëriñ Laay Fall Ndar mbégte guñ ci àndal mooy mooy mooy képp koo xam ne bunt boo xam ne fëgg nañ ko muy wuyoo Mbàkke sant maam Cheikh Fall war na ko ci bu ko yëgee ak bu ko yëgul ndax maam Cheikh Fall kat bu woon ak moom dee su xam sëriñ tubaab ba koy liggéeyal ndax daa fekk sëriñ bi foo xam ni sëriñ bi mu ngi fa woon ci digganteem ak boromam ak i bokkam mu fekk ko fa ni gaa yi bis tey moom ci kaw wuñ ci suuf daal di jël santam daal di koy jaay di ko wuyoo Mbàkke waaye gore moom mu ngi tàmbalee ci képp ko sant Mbàkke képp ko sant Mbàkke Fall nga war a wuyoo képp ko sant Fall Mbàkke nga war a wuyoo ñu sant fa ñu sant maam Cheikh Fall bu baax di ko ñukkalee suñu maam Cheikh Fall mi mu suñu Abdoulaye Fall Ndar loolu lu war la moo war a sunu teewaay bii jërëjëf Fall ñu gis yow sa taxawaay ci nga xamante ni mooy mooy gox bii di Malika ngay tàggat xale yi ci yoon bii waaye tey ñoom ñëpp nga indi leen ci mbooloo mi ñuy dox di sant sëriñ bi kon looy gën a ndaw ñi rek ci ñu gën a amuk taalibe ci ñu gën a amuk yar ci ak teggin Mbàkke Fall. waaw xam nga loolu dafa bokk ci ab Baye Fall. Mm-hmm. ndax baay Fall moom ku ko ràññale ko tuuti. war ngaa xam ne digg yar la ak teggin ak ab taalibe. Mm-hmm. loolu saa boo ko génnee génn génn nga Baye Fall. ndax diggante Baye Fall ak yëppër li dox seen diggante mooy jëfe ndigal bàyyi tere kon loolu la leen dégg Sëriñ Tuubaa nag dafa ni laata sonoo say an bi xayri isnin fa ñun sartoon bi xabali ku nit ko mënut a jëf leen lu da ci am ndigal diggante jëfee ndigal ak bàyyi teele saa bu ko bàyyi faal génnee mu ngi ci ñal wi gën yoon wi loolu rek lañ leen gën a digalaat ñu gën a ànd ak yar ak teggin ak ab taalibe ñu gën a ànd sant maam Seera Fall ngir ngir ñun saa bu ñu bëttee yoon bi jam nañ maam Seera Fall yëguñu ko loolu rek moo waral mbir mi Fall ñu ngi siyaar baax a baax a baax kon tamit Mbacke yow fa tamit Fall loolu ñaanal ne nga war woo mbokk taalibe yëpp ak mbokk Baye Fall yëpp ñu abonné ni lislaam rek moo ko tax a jóg moo tax ñu samp ko ngir dooleel lislaam ngir yëkkati lislaam kon nga maa bëggoon faal nga woo ñëpp rek ñu ci seen bii ah jàpp ci bi ba xamante ni fi ñu bëgg yóbbu liggéey bi dinañ ko fa mën sa Ali Sall ko. ñoo ngi koy ñaanal bu baax moom tamit. ba fépp fu mu fu mu bi ak ak yóbbu fëtale bi sama borom xam ne moom moom lañ feggool ak sëñ Abo Fall moom sëñ Maam Cheikh Fall sëñ Aliou Fall tam di ñaanal sunu borom defal la jàmm ndax bañ la xamee ba léegi ci lii leen la xam ci itte sëriñ bi kon yàlla na suñu borom guddal sa fan sa cër yaag ñi nga àndal liggéey bi yëpp suñu borom defal leen tawféex bu yaatoo yaatu yaatu malika daal ñu ngi fi di jéem a jëfal sëñ Tuubaa di mm-hmm. di ko di ko maam Cheikh Ibrahima Fall ko santee maam Cheikh Fall bu baax di xamal ni mboolem koo xam ne yaa ngi jullit nga ñu ngi fas yéene ànd yow ci ba liggéey sëñ googu Fall ñu ngi lay ziar baax jërëjëf Fall waaw mbokki internet Euh, reportage bi ci fii ci Malika Place ci seen daara ji di wakaan xàqan ni leen ko waxante woon rek ah di gërëm tamit bu baax sama caméraman Serif nga xam ne tey gis ngeen passé fi mu àndal naaj bu tàng jër ma ngi ci kaw oto ba kon moom it ñu ngi koy sant bu baax ba tey ñu taxaw ak benn mbokk taalibe ah moom it koy laaj ban yëg-yëg lay am buy dox di sant sëriñ bi ak ci safar gi nga xamante ni moom lañ nekk di ko dox ban yëg-yëg la ci am ak lan lay yëg ci sëriñ bi fi mu toll nii bay xaadim salaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bañ sante Serigne Touba di santaat Serigne Mountakha Mbacké moom mi fi nekkal Serigne Touba di santaat Serigne Amdi Mbenda Fall moom mi fi toogal maam Cheikh Ibrahima Fall li jëwrinam di leen ñaanal sa borom bàyyi la ñu yàgg fi di ñaanal it bépp mbokku taalibe boo xam ne yaa ngi aju ci ginnaaw sëriñ bi te di ko bége ñoo ngi santaat bu baax a baax a baax ci liggéey wi nga xam ne moom la ñuy taxaw saa su ne di ci am mbégte di ci am kontaante di ci am yokkute maanaam lépp lu ci mën a def rek lu jubluwuñ ci leen lu dul sant sëñ Tuubaa te sant sëñ Tuubaa moom doom moo fi desub liggéey leneen des fi liggéey lu dul sant sëñ Tuubaa kon ñun nag ci loolu la ñuy sax ba sax dàq ba àjjana continuer sant sëñ Tuubaa maanaam noonu dong lañ koy dundee ànd koog suñuy mbokki taalibe yii nga xam ne ñoo bokk dëkk Malika ñun ñëpp dañuy tudd daayira ndax mënut a ñàkk kër gu ne mën naa amub taaw ba caat waaye ñëpp ñoo bokk bàyyi ñun nag ginnaaw loolu ñu ànd ko fas yéene ko taxawu ba saa borom may ñu ay ay ay ay ay junni junni at ñu koy taxaw fii ci Malika mu gën a kawe suñ jot à chaque année muy gën a kawe suñ jot noonu lañ ko fas yéene defee ci kàttanu borom Touba sant daal lañ ci jublu ñu ngi santaat bu baax a baax a baax a baax di santaat mbokki taalibe yi ci idée yi rafet yi nga xam ne tëral nañ ko maanaam ñu ciy ànd ñoom lii rek moo fi desub liggéey leneen lu waay jàpp nañ ko moom te sant sëñ Touba loolu dong mooy mbégte mi dong koy tubaat bu baax tey santaat mbokki taalibe bu baax a baax di wax ni waaw leen góor waaw leen góor waaw leen góor kennal borom Touba moo wax a baax jërë ngeen jëf boo daaroo kan xan àndandoo di sant sëriñ bi ñu gis ci suñu baay bi ah nga xamante ne naaj bi mi nga ànd di dox ku ne xam ne naaj bi metti nag ak bi mu am kon ñu koy laaj moom ban yëg-yëg moo waral muy dox ci naaj bu tàng bi di sant sëriñ bi ban yëg-yëg la àndal fi mu toll nii asubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim dañuy wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñuy jaaraamaal maam Seera Fall borom Daaru Xoxoor di jaaraama maam Seera Fall borom daara Xofor ñu ngi sant Cheikh Saliou Fall rakam ju tedd ja bokk ak moom soxna Seynabou Ndiaye ak Ahmadou Roqiya Fall ñuy santaat ku baax kii nga xam ne sëñ maam Cheikh suñ borom dañu koo indil ci gox bii di Malika ñu di ko ñaanal fan wu gudd ànd ak ndax moom kat dafa taxaw taxawaay maam Seera Fall muy loo xam ne lu ñu jafe woon ci Malika la adduna moom Sëriñ Tuubaa da koo ndar képp fépp fu waayam nekk dees na ko fa fekk waaye lu bokk ci moom bu fekkee ne dafa ñëw fii muy taxaw taxawaaye maam Seera Faal ah ñun dañuy santaat yàlla ñun waa Njaareem dañuy santaat Njaareem ñun waa Malika Plage ndax lii ñun fi Sëriñ Tuubaa defal ak maam Seera Faal kat ah la Sëriñ Muntaxa doon wax ne Baay Faal bu dëggal moo ko gënal jëmmi boppam ñun ñii kat wax dëgg yàlla suñ maam Cheikh mi gën nañoo xamal li ñu doon bu fekkoon ne xam nañ ko it gën nañu ko xamal ñu santaat waa sëriñ bi bu baax di sant waa këram ñëpp di ñaan ci yàlla suñu borom dolli ñu wër ak gudd fan te saxal ñu dàq ci liggéeyal sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Fall jërëjëf jëfate yéen ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax dañoo bokk loo xam ne mënuñu koo seddoo sëñ waa leen bokk ak maam Cheikh Fall lépp loo xam ne ñu nga cay yëngu rek bu nu gëstoo gis leen ci seen wet mbaa ngeen gëstu gis ñu ci seen wet bon dañu ñaan yàlla yàggalal ñu liggéey boobu ci dooley sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah góor gi looy wax waa Ali Imran TV télé bii nga xamante ni u Alioune Sall moo ko taxawal ngir liggéeyal islam bu ne ki ko gisee ni bis bi dox bi métti na waaye teewul mu indi lépp lu mu am rek ngir liggéeyal islam ngir yaatal liggéeyal sëriñ bi looy wax waa Ali ak looy wax ñi koy seetaan pour ñu ñëw abonné wu gën a liggéey bi waaw di leen sant di sant sëriñ bi bu baax a baax ndax lii kat wax dëgg yàlla yéen it ab soññaakoon ngeen ci liggéey bi seen télé bi dañ leen di ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi ci télé bi suñ borom defal leen saadatu daaray ne defal leen wér gu sax dàkk ak ngërëmal sëriñ bi barke maam Seera li ngeen ci wut yàlla na ngeen ko am ba am ci lu ko ëpp ba sedduñ ñu ci waaw ndax yii lii rek la lii rek moo dig murit yàlla nañ sëriñ bi doolee jàppale te tali bi suñ boobu yóbbu ko ca kaw kanam. barke maam Seere Fall. waaw ah. jërëjëf jëfandikoo mbokki Baye lépp loo leen wax nañ ñëw rek abonné mbokki da Baye Fall yëpp ndax lii kat ku ko sëriñ bi jagleel say mbokki taalibe di jóg di ca ñëw ñoo kenn ko ci rek war ngaa xam ne liikat kat sëriñ bi rek la war ngaa xam ne sëriñ bi rek la jaajëf. waaw sëriñ bi rek la yal na sëriñ bi doolee jàppale barke maam Seydou Fall mbokk internet Ali Imran TV marche pacifique bi nga xamante ni moo leen doon def fii ci Malika ànd ak daayira Wakana Haqqan alaynaa nasrul mu'minin fii ci Malika a ah, ñoo ngi jeexal marche pacifique bi nag ndax itinéraire bi nga xamante ni moo nekkoon ci autorisation bi ah mi ngi waaj jeex ndax dem nañ Malika place jóge fa dem croisement dugg ci biir mbedd yi ñu ngi nii di deesuwaat ci kër Sëñ Touba gi ah pour jeexal li nga xamante mooy marche pacifique bi kon mbokk yi ni leen ko Ali Imran TV diggee woon rek ne fii la café gi tàngee fii la café gi fooree waaye fii la café gi fuuree kon lépp yéen a ngi koy direct te doo na fay dara kon mbokk yi Ali Imran TV ngi noonu di laatee des grands événements au service de l'islam kon ñoo ngi nii di jeexal marche bi tàmbale nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim waaye di waaj jeexal doxu marche bi ah di egsiwaat fii ci kër Sëñ Touba gi kon boo leen ñu toppee rek. li topp ci ginnaaw marché bi dinañ leen ko digtal doog a tàggatoo ak yéen kon gars yi topp leen ñu café gi fii la tàngee nag waaw ku ñu topp rek café fii la tàngee fii la fooree. waaw safar gi nag li wax ne euh, sëñ Touba ay mbiram tànk kanam la jëm amu tànk ginnaaw ban koy tàmbalee ci café la tàmbale woon at ma ñuy def ba ay beñe waaye gis nga ko dem na ba dem ci ay ginaar ak ay nag ak xar yëpp te xam ne des na ci kanam tuuti ay gileem la ñu jënd. ngir sant la ko sëñ Touba bésam bi di waaj nag di safar di ñaan yàlla sunu borom yóbbu ñu ci jàmm ñu ñëwaat ci jàmm yeesale liggéey bi sëñ tubaab bi ndax moo fi des ci liggéey sëñ Touba moo dàq lem fi ne suñu xol yi daa sedd guy guy guy guy guy guy kon dañuy wax jërëjëfa sëñ Touba jërëjëfa sëñ Touba jërëjëfa sëñ Touba waa ba tey mbokk yi rek ñu ngi fii ci waañ bi waaw ni nga ko waxee woon rek jóge nañ ci marché bi kon ñëw nañ ci bernde yi ndax ku ne bisu murit waxi bernde ñu fekkaat suñu beneen yaay di soxna May Jóob bëgg fàllu Ah, ñëpp xam ko fii ci Malika mu fiy liggéeyal sëriñ bi mooy bokk ci daar ji di Wakana Haqqan dañ koy bàyyi rek moom mu wax ñu yëg-yëgam ci bis bi nga xamante ni moom la ñuy taxawal muy safar gi ak naka lañ waajalee benn yeeg ak taxawaay bi nga xamante ni moom la ñu amal chaque année fii ci Malika bisimilah auzu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim laa xawla wala xawata illa billahi aliyu azim jërëjëfa Cheikhul Khadim jërëjëfa Serigne Touba jërëjëfa Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall gannaaw ban sante yàlla julli ci yonenteem bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñuy ñaari waajur di sant Cheikhul Khadim bu baax a baax a baax ci bésam bi xam ne ñoo ngi ko koy màggalal di ci sant bu baax a baax di ànd ak yéen daara wakaana xaqan bu Malika ñi ngi ànd ak yéen bés bi tey jii di nekk ay édition yu yàgg a yàgg yàgg yàgg ñuy ànd ak yéen di liggéeyee Cheikhul Khadim di wax ne sëñ Touba liggéeyam amul tànki eh, arrière tànk toujours ci kanam la ndax lii ban koy def ci café dong lañ ko jëkke woon tey na ñëw nañu ba teg ay mbana di rey ay ay nag lu nekk ñu koy def ngir màggal Cheikhul Khadim sëñ Touba da moo toll noonu mooy santaleen ma sama bés bi ndax bésam bi moom na koo am mu fonk ko lool nag mu yemale ko ci gannaaw ba ci gileem nu ci waay am rek nga defar ko ko ci ndax ki ko sant boo ak ki ko santut jërëjëf suñu yaay soxna May xam naa ne kàddu yi du mën a bëri ndax dañu amal yeneen interview ñu defaat si biir rek mhm. gis ne benn yi moom daanaka noppi na ngeen nga xamante ne li yëpp ñi rek moo ko tax a jóg ak waajal bis bi nga xamante ne mooy bisu sëriñ bi ci berne yi. waaw berne yi moom. dañ koo togg uniquement pour taalibe Cheikhul Khadim. taalibe moom boo ko waxee ñëpp la muy murit muy tiijaan muy ku sa wës rek nekk rek. yaa ngi ci berne yi ku ñëw daal di nga lekk ba sa biir fees. ku ñëw di nga lekk di nga naan di nga sant sëñ Touba soxla nga naan di nga lekk ba suur nga naan di nga maan di nga sant sëñ Touba. jërëjëf kon di wax jërëjëf Cheikhul Khadim jërëjëf sëñ jooju di leen sant bu baax a baax nag ndax lii sama télé la mhm. sama site la boole ci mhm. ndaxte yow dama lay sant baax ji la gërëm mm-hmm. ndax émission yi fi am léegi yaa ma koy jooxee dama ko envoyé waa sama kër bopp mm-hmm. muy lien bi mu nekk sama lien bopp nag mm-hmm. di leen sant bu baax a baax di leen ñaanal fa télé yu mag yi egg yàlla ngeen fa yegg da ngeen eggale ko fi nag ànd ak wér ak fekke ak tal yàlla mën na ko am na ko yàlla na leen ko yàlla dafa ci darajay Cheikhul Khadim di jërëjëf sëñ Fallou nag di sant sama sëriñ bu baax a baax jërëjëf mbokki internet yi ba tey ñu ngi fii ci Safar Wakkaan xaqan na sunu muminin jóge nañ ci marché pacifique bi waaye marché bi ku gis dayo bi mu am maanaam mbooloo mi nuñ bëree macha allah lépp rek organisation moo ko waral kon ñu ngi ni taxaw jëriñ ji nga xamante ni moo jiite organisation bi ñu koy laaj ban taxawaay lan amal ba organiser li nga xamante ne mooy marché pacifique bi mbooloo mi yëpp génn ak ci ñaata édition la toll suñu àll bi. jërëjëf sëñ Sëriñ la jaajëfal bu baax di jaajëfal waa télévision bi seen teewaay waaw comme ni nga ko waxee léegi rek marché bi moom daanaka. mun naa ne bii mooy quatrième année su ma juumul ñu koy amal ànd koog mbokk Baye Fall yëpp ànd koog mbokki murit yëpp ndax Sëriñ Tuubaa ay mbiram dafa yaatu Baye Fall yàlla bi isbu yi ñuy jàng xasida ñuy rajas ñëpp ci biir bis mi nag ñëpp a fi daje ndax ñun li ñu ñor mooy boole mbokki taalibe yëpp ñu nekk Malika def naa ne tay bis bi ku fi ñëw doo xamee murit daal ngay xam voilà ci loolu nag ñu siy sant bu baax ndax euh, liñ ko séntoo woon donc amee na ni ànd kooko kilifa yi ren nag ñu dëppee woon ko kenn si njabootu maam Cheikh Fall yi muy sëñ maam Cheikh Fall sëñ maam Cheikh Fall di kilifa nekk si Malika bu ko defee mu ànd koog suñu jëwriñ sëñ Amadou Mbacke ànd koog isin sëñ Mor Talla Fall nekk fële ci montaan ñoom ñëpp ñu ñëwoon ànd ak mbokk taalibe ci bis bi macha allah ñuy sant sëñ Tuubaa baax bis bi jaar na yoon gis nañ ne am na réussite daal ak sama gars yi waa organisation nga gis seen taxawaay bi nu mu rafetee macha allah dañuy sant daal ndax gis ngeen mbir mi nu mu tuwee maanaam lépp ay ay quelques personnes mënuñu ko waaye ñëpp ci jàpp mu xam ne lépp sëñ bi moo ay mbiram dafa yaatu waa noonu noonu la demee. jërëjëf signalé mu mel ne ku gis mbooloo mi ni mu bëree xam ni nga ko waxee rek du benn daayira waaye yéen ban pexe ngeen def rek ba fexe ba dajale mbooloo Malick yëpp ñu gis ni loolu dafa jafe waaye fexe ngeen ba réussir ko. ci ci yan yoon ngeen jaar ba mën a réussir loolu. waaw loolu day day day laaj ay waxtaan ay réunion yoo xam te amoon nañ koo gars yi def liste daare yi bu defee ak ak euh, ñoom sëñ ku Diak ñoom sëñ Modou gaa yëpp ñu liste daara yi nekk Malika ak li ko wër bu ko defee daara bu nekk ñu am ñu fa yebal ñu dem waxtaan ak ñoom ci bis bi donc mu nekk marche générale boo xamante ne tey daare yu bëri daje nañ ci te dañuy bëgg li ñu bëgg bu amee mooy ñëpp def ko benn safar te mën naa am te xam naa ne ci loolu lañ jëm incha allah waaw. jërëjëf sëñ Alla jërëjëf sëñ Alla waaye tamit loo leen di wax télé bi nga xamante ni mooy Ali Imran TV nga xamante ni dafa déplacé moyen moyen am yëpp ñëw ànd ak yéen marché pacifique bi nga xamante ni islam rek moo leen ñor ci la ñu dox kon looy wax mbokki taalibe yi nga xamante ñoo dëkkee fii ci ci àdduna rek ñu abonné wu si télé bi di Ali Imran TV te jàppaleen ci liggéey bi te xam ne islam rek moo leen tax a jóg. waaw macha allah Ali Imran TV gën seen taxawaay ndax durant marché bi ñu gis oto bi. donc ak équipe bi ñëpp ñëw yëpp donc ànd ak ñun marche bi donc c'est pas évident def déployer nañ ay moyens pour gis xam ni essence mooy nekk bi ak ak yeneen ak yeneen gis nañ seen taxawaay vraiment di ñaan ñëpp ñu abonné wu aussi di topp jotaay yu baax a baax a baax ndax vraiment nit buy def lu baax dañ koo war di fësal te defe naa ne ñoom ci loolu lañ nekk waaw ñu ngi leen jaajëfal bu baax di leen ñaanal ñu am ay télé télé télé. jërëjëf mbokk internet Ali ni leen ko waxee woon rek ba tey ñu ngi fii ci marché bi rek di def ay quelques interview ñi nga xamante ne ñoo taxawal liggéey bi du si mën a ñàkk ni leen ko waxoon rek fii la café gi tàngee ku ñu topp ci safar gi rek di nga dund mbégte di nga dund bànneex di nga dund tawféex kon gars yi nii la rek ba ci kanam incha allah bi ah ñëw ci nga xamante ne ñooy jëwriñ ñi nga xamante ne ñooy jiite daara ji jëwriñ jaa ngi nii di Serigne Hamidou Mbacké moom sëñ Modou Rokhaya moom maam Cheikh Anta moom sëñ Modou Rokhaya moom sëñ Modou moom maam Cheikh Anta Salaam nga xamante ne moo jiite daara ji di wakkaana xaqan ku ne gis ne lu rëy liñ fi taxawal waaye suñu wetu càmmoñ tamit ñu toowal fi jëwriñ Seydina Alin nga xamante ne tamit jëwriñ la ci daara ji ginnaaw Serigne Amidoum ñoom ñaar laa taxawal nii nga xamante liggéey bi li muy rëy rëy rëy ñoo ko jiite comme ñoom ñu am solo lañ mun ñu see ñàkk kon xam naa ne dañuy jox kàddu gi Serigne Amidoum mu wax taxawaay bi nga xamante ni moom la daara ji di wakkaana xaqan ak liggéey bu rëy bi nga xamante ni moom lañ fi liggéey nan lañ def taxawal ko fi ak yan doxalin la ñuy doxal ba tey ñu mën a taxawal lu mel nii sëriñ Amadou waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu mboolem jullit yëpp di tamit di jéggulu mbokk dëkkandoo yi yi nga xam ni romb nañ leen doon dox ngir jëmmi sëriñ Touba di kennal sëriñ Touba muy karawaan Cheikh Ahmadou bàmba da nga tudde ñu ànd koog mbooloom waa Malika ñëpp waaye ci njiital sëriñ Alam mi nga xam mooy organisation bi boole tamit sëriñ Alam mi nga xam ne mooy jëriñu kuréel gi ak sëriñ kanam mi nga xam ni mooy secrétaire général bi ak sëriñ Bamba Ndiaye mi nga mooy coordonné lépp lépp ci wàllu xaalis ci daal ci tënk ñoo ko àndaloon ak suñu daayira tout tànk numéro 2 yi tamit kuréel 2 gi ñoom daal lañu àndaloon liggéey bi ak waa Malek gépp liñ def ba taxawal ko taxawaay bi mooy ci waa organisation ñoom ñoo yor lépp ñu am xalaat bi am li ci liggéey bi li ci ëpp ci ñoom mën ñi ni ñoom la waaye ëpp ci wàllu njàng mi sëñ Aliou mii la ak sëñ Cheikh Diop mi nga xam ni moo jiite wàllu alxuraan ji sëñ Aliou mi moo jiite wàllu kuréel gi sëñ Cheikh Diop moo jiite wàllu alxuraan bi ak sëñ Ibrahima Niang programme bi daal noonu la man yàlla dafa dogal ma participer ci rek waaye daanaka yëf ma xoolee maa ci gën a woyof gën cee suufe te it gën cee ñëw lu ma def ci lu wér ñu ko tamit suñu maam Cheikh Fall mi nga xam ni waa Kër Ibrahima Fall la mu yebal fi doom lu mel ni sëñ Bada ak sëñ Aliou ak sëñ Mor Talla Fall ñu àndoon liggéey bi ñëpp def ko leen sant bu baax tamit leen ci gërëm ci taxawaay bi lépp mën na xanaa bu fekkee daa am laaj boo laajaat rek. waaw incha allah sëñ bi kàddu yooyu am na solo xam naa ni li ñu doon laaj moom loolu la rek ndax taxawaay bi ni nga ko waxee lu am solo la liggéey bi tamit am na solo lool ci ñi nga xamante ne ñoo koy seetaan ndax xam ne ni lii du liggéey bu tuuti nekkul liggéey bu ndaw tamit xam ne ñu ko ñi ko taxawal ñu koy jiite ay jàmbaar lañ xam naa ne dañuy jox sëñ Aliou rek moom it mu ñëw ñu ci li nga xamante ni mooy projet yi nga xamante ni Daara Wakana Haqqan bëgg na ko fii fii ci Malika ndax xam naa ni seen projet yemul rek ci safar ak ak ak marché kon képp kuy seetaan rek bëgg naa xam lii projet Daara Wakana Haqqan fii nga xamante ne la nekk ci Malika sëñ Aliou. jërëjëf sëñ Massar ñu ngi lay ziare di la jox sa wàccuwaay di ziare sëriñ am Mbacke di ko jox wàccuwaay moom it di ziare mbokk taalibe yëpp. di wax rek comme ni ko sëriñ waxee daara wakaana xanaa le naa nasul moom ni daa nekk daara yoo xamante ne nii bañ ko soseeg léegi doxul ci loolu ay projet taxawal nañ fi projet sunu ci lu valeur presque neuf cent cinquante mille wala un million et quelque taxawal fi base boo xamante ne nii six cent mille la ak beneen base bu trois cent mille fu na nii nag xel yi projet à long terme yi nga xamante ne moom lañ teg am fi kër Sëñ Tuubaa boo xamante ne dañ fiy tàggat ndaw ñi ñu leen tàggat ci xasida di leen tàggat ci alxuraan tàggat leen ci muridisme ba ñu gën a xam lan mooy yoonu murid ba gën a tàggatu ci murid loolu mooy mbébét yi nga xamante mooy projet long terme bu gën a kawe ci daara ji waaye nag dina am ay projet court terme yoo xamante ne dañ koy teg fii ay projet deux ans projet six mois projet un an yoo xamante ne nii lépp loo xamante ne nii day suqali daara rek loo xamante ne nii matérielu daara la moo xam cin la la moo xam basse la moo xam loo xamante ne nii lépp loo xamante a jëm kanam ba koo xamante ne nii amul ci liggéey sax ñu utal ko liggéey koo xamante ne nii deful dara ñu jéem koo defal dara ngir dimbalante ci yoonu murit daara ji moo ngi koy xalaat di ko jéem a taxawal waaye projet bi gën a rëy daal bi nga xamante ne am nañ ko jàpp nañ ne buñ fi amoon daara joo xamante ne nii fii si Malika dinañ fi tàggat ndaw ñi ci yoonu murit ba ëllëg maanaam luy fëkkee te gaaw loolu du leen fëkk maanaam loolu mooy suñu projet bi nga xamante ne nii moom moom moo gën ni ma la ko waxee sànq nampes lépp loo xamante ne nii gis nañ ko fii ak six mois bu ñu ko taxaweelee dina tax daara ji gën a jëm kanam dinañ ko taxawal incha allahu rabbi jërëjëf sëriñ Aline kon sëñ Amidoun dañoo bëgg looy waxal télé bi nga xamante mooy Ali Imran TV di télé Oustaz Alioune Sall ñëpp gën kaa xam ci muy liggéeyal islam di taxaw diina ji kon dañoo bëgg nga woo bépp murid rek buy seetaan wala bépp jullit rek mu abonné ci télé bi jàppale liggéey bi xam ne liggéeyu islam la looy wax waa Ali Imran TV nga xamante ne dañoo déplacé seen moyen yëpp ngir safar di leen nuyu lu baax di nuyu di ci nuyoo bi oustaz Alioune Sall mi nga xam ni moom moo ko taxawal di kilifa tey du dox ci lislaam ñu xam ne lislaam rek ko ñor ndax moom loo wax ne moom lay doxee yàgg na ay conférence waaye tamit lépp loo ko laaj dina ca tontu la lislaam wax par paru deful dara kon mu taxawalee tale yéen na maanaam tey ñëpp dañ xam ni kii kat ci lislaam lay dox tale bi lislaam te diina la duñu man bu leen ñaanal ndax it seen jëwriñ liggéey ci yoonu lislaam la kon nag bu ci ab télé amee dañuy ñaan ñëpp jàpp ko di ko seetaan di ko bàyyi xel te xam ne diina rek moo ko tax a jóg te léppam diina la kon nag ñu maase jàpp ko te xam ne wàllu diina ñun diina kat am nañ lu ñu mën a mot le suñu diine am nañ ñu mën a xamee suñu diine kon ñu fexe kenn ku ne jàpp ci la nga man ba fépp fuñ seen télé yi mu àgg fa kawe njortam loolu ndax lislaam dong la taxawal moom la ñor ñu leen ko ñu leen ci woo yéen ñëpp nag mm, jërëjëf jërë jëf jërëjëf kon mbokk yi ni leen ko waxee woon rek télé bi di Ali Imran TV ni mu def di déployer ay moyens am di dem ci safar yi di leen di leen bégal di def seen bànneex lépp rek ngir liggéeyal lislaam ngir lislaam jëm ca kanam te ñu ñëwoon fii ci Malika Place di marché pacifique nga xam ne daara jii di wakaana xaqan ñoo ko organisé mboolem Malika mboolem jullit yëpp génn àndandoo dox sant sëriñ bi kon tey lii leen la indiloon fii nga xamante ne mooy ci Touba Malika mbokk yi ni leen ko waxee rek Ali Imran TV fii la kafe gi tàngee fii ku ko topp rek saa su di nga dund mbégte waaye lépp rek ci lislaam lépp rek ak ci diine kon ñu ngi sant suñu caméraman euh, Serif di jàmbaar sawar lool ci liggéey bi waaye di sant suñu sëfoor tamit euh, Serigne Alpha ak Oustaz Alioune Sall ak euh, Soxna Fat Diallo ak mboolem Ali Imran TV rek mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne ku ñu topp rek saa su ne di nga dund mbégte di nga dund bànneex salaatu lazi fi